asalaamaaleykum mbokk yi teel a àllarba ñaar fukk fan ak juróom-ñett ci ramadan muy weeru koor ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukk fan ak juróom-ñett tey dafa dajeeg ji ci weer moo tax kon rafetul ñaar fukk fan ak ci weer wu nekk nag dees ca yeggale ab say dees ci tukki ñaanu bis bi yow yàlla ab jéggalekat nga te bëgg ak jéggale yàlla na nga ma jéggal allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni xadiisu bis bi jëleef na ci abi hurayra yàlla na yàlla gërëm ko mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari waata ngi yu woyof ci làmmiñ te diis ci balance te sopp fa sunu borom mi aji yërme ji muy subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim xadis bi dëppoo nañu ci an abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmisan xabibataani ila arrahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim muttafaqun alayhi waxtu julli yi suba waxtam dana tax di cinq heures trente-six juróomi waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom benn tisbaar treize heures trente-trois benn waxtu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 juróom benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak benn diso dix-neuf heures dix juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñaar waxtu jàpp wi muy waxtu yu ñu bàyyi xëdd cinq heures vingt-huit juróomi waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett waxtu dog wi dix-neuf heures vingt-trois juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett yàlla na yàlla nangu ca nangul leen amin